matinale de retour les amis bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Parc des Princes de la 2STV la télévision autrement mbégteeg bànneex contentement gi ñuy àndal chaque jour ngir bégal leen xam naa ni moo nekk ci yéen maa ngi leen di kontaane bonjour et bienvenue au Parc des Princes de la 2STV la première chaîne privée du Sénégal ñi ngi leen di kontaane bu baax a baax les amis j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous quant à moi je àndal ndaxte xam naa ni tarkal la fu waay mën a nekk ci àddina rek yaa ngi ànd ak ngir gis yaa ngi ànd ak di ree di kaf di fo donc contentement bi may yëg moom ngeen di yëg maa ngi leen di béggee bu baax a baax a baax bonjour à vous les sénégalais de la diaspora maa ngi leen di kontaane yéen di leen wax bienvenue au parc des princes de la 2STV rendez-vous bi leen di accompagner ci seen biir bi leen di accompagner à travers vos téléphones portables rendez bi nga xamante ni à chaque fois da <laughs> bu baax a baax nos amis qui nous regardent ici en Afrique bokk na ci waa Mali Burkina Faso Bénin Libéria un peu en Afrique Cameroun Niger waa Zambie également l'autre jour bi ma demee Thiès am na ku ni ma may xëcca da ngay fàtte nuyu waa Zambie dañ lay béggee bu baax a baax a baax kon yéen waa Zambie maa leen di kontaane bu baax a baax di leen jox seen wàcc waay yéen itam sama bët yu sew yi xoolal bu ma takkul verre noonu lay feeñe mais am problème tey Fatick Diourbel Matam Saint-Louis du Sénégal un peu partout au Sénégal one à vous merci beaucoup pour vos appels et vos SMS à chaque fois Kheucha namm nañu la Kheucha ñëwal Kheucha lii Kheucha laa xam ngeen lu ngeen ma namm benn ram naa leen ko fukk xam naa ne élèves yi doon jooy nag démb ak bërki démb non mais loolu mënu ma ko moo tax léegi nee naa Françoise foog mu leen di teel a tegal seen ay rediffusion ñu jéem a dindi ay émission sax tegal leen seen rediffusion ba pare léegi nga xam da di tëdd ak moom bu ngeen yeewoo mën nekk en bonne humeur en tout cas maa leen di kontaane yéen élèves yëpp di leen béggee euh, di leen ñaanal jàmm ak tawfeex ak sutura yéen ñëpp dégg ngeen ay ca euh, di nuyu bu baax baax ñi nga xamante ni ñoo leen di accompagner également ci équipe technique bi bokk na ci caméraman yi les nos amis à également Mister Grégoire l'international mu daan demee sa chaque jour gis ngeen maa ngi commencé miir parce que bu ma takkul verre rek damay commencé myob daal tay man mii xam naa ne damaa myob <laughs> gré mu maa ngi lay kontaane bu baax a baax moo namee très cher mbokkum yaay Bamba Style Bamba Style nag moom da nga ko naan lii mu indi les gré naa la tegal li mu def ma tegal la ko ayca bu fekkee ni kale nga rek yow itam nga nu muy demee chaque jour waaye je vous rappelle que 88 di mën a participer les amis le temps ñu ayca liggéey ba tàmbali na wala ñu jël ki ne ci ligne ba pare c'est sur le 88 628 14 ou 13 bonjour. allo. oui allo. di Dieng Issa. oui naka mu yaaw. ça va. ça va bien et toi. naka mu. maa ngi baax yow yaa ngi baax. maa ngi baax. ay eh, ku fi xolam di baax tabaarakallah yow. wallaahi tabaarakallah. eh bàyyi ma taxaw yow bàyyi ma ni nii. <laughs> taxaw noonu. sinon ça se passe. ça va bien. ngi fine quoi. waaw waaye gis nga li ma relax nii gis nga côté bi yéen gis ngeen sama t-shirt bi ci côté bi ni ma poche bi ma ci def poche bi fii laay denc sama xaalis léeg-léeg. ayca <laughs> kontaane naa ko bu baax a baax mbokk moomu doon woote Grégoire l'international le temps nga may indil sama séance d'étirement ma takk samay lunette yow balaa may daanu maa ngi miir. oh oh oh oh oh xëy harmonie yooyu foog nga mën a woy pour mën ko ay ca contentement mbégteeg bànneex defe naa ni def nañu suñu séance d'étirement yéen itam seen biir kër def ngeen seen séance d'étirement samay verre takk naa ko léegi maa ngi gis lépp maa ngi lay seen loxo neel nii <laughs> yëfi xale la dañuy foo dong ay ca euh, très rapidement les amis comme vous le savez on est lundi et comme chaque lundi nouveauté yi nga xamante ni jot na ruus ci ci toile bi c'est vrai que nag euh, récemment euh, ci ay clip ak ñoom seen bariwut waaye am na ndaanaan boo xamante ni kilibam euh, mi ngi def un peu partout sur les réseaux sociaux sur toutes les plateformes boo TikTok xale yi moom la ñuy béggee boo demee euh, Instagram moom la ñuy euh, moom la itam donc moom di dalal tey di ko xam léegi bàyyi ma jël ki ne ba pare 88 628 14 13 Fatou doom bàyyi ba may samay wax yow ngay def bu ñu xuloowaat <laughs> allô allô waa DJ Kheucha bonjour comment vas-tu ça va très bien. toi c'est comment Oulimata Thiam. ah. Oulimata Thiam Oulimata Thiam. Oulimata Thiam Babel Demba Thiam. lan cara. Thiam Thiam. waaw Thiam Thiam laa la wala yéen Thiamee nii da ngeen bari sa da ngeen bari ni leen di taggee de. non NE la NE. ah Thiam. ah kon Thiam am na. Thiam am na kay. rek laa ko jàppee woon non non fan ngay wootee nii actuellement. Mbacke. Mbacke. waaw maa ngi lay kontaanee noo def. maa ngi ci. et je sais que namoon nga ma c'est vrai non. ah <laughs> allo. ayaya moom dem na euh, Thian foog nga ñëwaat euh, ci 88 628 14 13 ñu mën la bégal ci mbaax le temps may euh, nuyu bu baax a baax l'international mon ami de valeur ah kooku nga kal la ñu ne ko le shop moo gaa sur borom Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar cum ay lan def Thiès ay <laughs> lan defati Thiès sax laay wax moo gaa sur moo comme yaay boss yande sama gaay yaa ngoogu tarkal moom Momar business attitude xale boobu nga xamante ni kuy jeune bëgg ay emploi xale boobu nga xamante ni kuy jeune bëgg ay projet ci moom ngay jaar na sa jàmm yàgg sama xarit bi Momar yow dundal rek yow Fall ayca c'est toujours sur le 88 628 14 leen di indil euh, champion yéen xam ngeen ni man champion la te xam naa ne yéen ñi may seetaan vous êtes des champions nous sommes tous des champions alors euh, ma jël ki ne ci ligne ba pare ñu doog a dem ci loolu c'est vrai que ni les lundi nag gars yi da ay ya ndeysaan ay ca dugaatal ci 88 628 14 13 laata ma leen di jox seen son champion ñu dem xool ko très rapidement et on revient Mister Grégoire l'international c'est à toi fan la dëkk ñu ne ko from Medina booy bi du ragal nag euh, kooku nga xamante ni moo di El Jazz nee na champion dama di champion luy naaw a neex a sànni dama di champion c'est vrai que luy naaw dafa neex a sànni ndax pitax boo nekk nii day dem picc soo ko sànnee nii day dem mais nit boo ko bëggee jël sànni ko danga koy gaañ <laughs> da nga koy gaañ euh, maa ngi doon sitaan léegi léegi gré kii euh, Pape di Fall euh, ci Good Morning bi ak émission bu neex boobu mais ñu dër ñi lan moo tax boolewun la ci yow Grégoire lan moo tax nit ñi di la fàtte ma loolu dafa ma metti yow kuy dër ci réew mi yaa ko gën a dër maa ngi nii bu may wax sa tur sax damay dëraale tellement ko yow ni nga dëree dafa garaaw yow association bi waroo ci nekk sax vice président wala ñoom seen da nga ci war a participer di ci joxe sa xaalis di ci joxe sa ndimbal pour ñu faj la parce que bu la faj du baax gërëgaal <laughs> bu waree wax fii noonu da jë ah papa ça va prendre beaucoup de temps en tout cas ñi ngi bu baax a baax a baax merci beaucoup à l'international El Diaz euh, très rapidement les amis l'actualité en bref tous les lundis xam ngeen ni dañ leen koy indil li jot a ruus ci toile bi euh, la ñuy xool naka koy doxalee ndaxte euh, li nga xamante ni euh, macha allah mooy jot a ruus ci week bi c'est-à-dire ci li nga xam à partir de vendredi samedi dimanche ba lundi bi ñu toll donc dama koy jéem a xool gis naa ne nag dafa mel ne équipe nationale ils se sont qualifiés cher pays s'est qualifié euh, à la CAN bi nga xamante ni moom la ñuy dëgmal ca Cameroun incha allah donc mu doon fierté également euh, première équipe bi qualifiée c'est le Sénégal notre pays bu marqué par Sadio Mané l'international vous savez que Sadio Mané c'est mon jumeau Sadio Mané man ak moom le 10 avril lañ juddu le 10 avril le 10 avril la Sadio juddu man le 10 avril laa juddu xam naa ni euh, am na woo na ma barki démb naan ma xëcaa xam <laughs> nga duñ ma gëm ndeysaan ils vont ils vont dire que non xëcaa là là là là moom là là là tu abuses je vous assure que Sadio m'avait appelé l'autre fois bi anniversaire bi amee ma xam na un de ces jours dinañ feetandoo suñu bës day man ak yow ma ne ko loolu dina am léegi 88 628 14 13 ma jël ki ne ci ligne bi bonjour Fatou est-ce que duñu xoolati ligne bi comme que moom léegi dan koy xool rek ah nit ñee ngi ñëw di dawaat rek kenn xamul lan la nañ leen jéem a xoolaat 88 628 14 13 bi xool lan mooy problème ak war a bu amul jàpp rek ñu bàyyi ko xool xam ne ci nit ñi la gré loolu bu fekkee ni kale nga ko mën nga koo ruusal boo ko kalewul tamit mën nga ma ni ma euh, noppeegul man bu ma gisee image bi rek dinaa commenter nga xamante ni dañ ci xuus tuuti rek ñamal ci nit ñi ñu xam li jot a euh, ci week bi nu jugee euh, par rapport ak li jot xew donc très rapidement bu fekkee ni kaleel nga ko rek mën nga koo teg nii man dinaa ci commenter à l'instant nit ñi mën koo gisaale bu fekkee ne nag euh, yembul nga wax ma ayca 88 628 14 13 bonjour. waaw. ah allo. bon je crois que ci ligne bi la parce que nit ñi mun nu ñëw rek di dawee nii à chaque fois donc nan ko jéem a xool ci euh, changer ko wala ñu jéem a xool 33 euh, bi ba xam ça va marcher ou pas sinon mën ngeen woote toujours ci 88 628 14 13 ñu dem euh, xool Dip Doundou Guiss deuil national bi nga xamante ni way na ko ça fait le buzz sur les réseaux sociaux Dip a fait une sortie boo xamante ni macha allah sénégalais yi ils l'ont apprécié parce que bokk na ci les premiers artistes yi yoo xamante ni sur la toile ñi ci gën a ràññee yi ko def euh, donc mu doon lu doy mu doon lu lu lu lu magnifique en fait ñëpp rafetlu ko à travers les commentaires et autres donc bu fekkee ni loolu kale na gërëm xam naa ne lee noppiwul mën nga ma indil dub dindi gis bi ñu dem xool euh, élément bi et on revient ak clip bu bees bi mu génnee dey national c'est parti l'international dib dund gis une très belle chanson boo xamante ni c'est un hommage ak ñi nga xamante ni jot nañoo euh, ñàkk seen bakkan ci immigration clandestine bi ñu koy euh, kontaanee bu baax a baax a baax a baax Dip Doundou Guiss merci beaucoup man dama ko doon déglu bu baax a baax a baax <laughs> nga benn pàtt bu ma rey ñu <laughs> ñun waxkat yeeg <laughs> yenn waykat yi duñ ko mën a wax ay yi daal am ngeen fit daal rappeur lu ko neex lay wax rappeur moom yoonam néewul ci lenn ay ca l' actualité en bref bu fekkee ni kale nañ ko euh, kii lu mu tudd faatu ni nga ma ko waxee euh, kii lu mu tudd Kheucha euh, kii lu mu tudd Fatou boo xamul sama tur xaw ma sa tur da nga bëri jikko rek di ko ju sew ji nga yor ay ca euh, gré euh, rogalaan ko ci suuf ñu mën a xool élément bi à l'instant même euh, kooku ngeen gis nag moom mooy le numéro 10 de l'équipe nationale du Sénégal et de celle de Liverpool également l'international Sadio Mané moom mooy ñu sauvé moo ñu sauvé sax la ñuy wax ndaxte yàgg na ci dëkk la mu ngi ci ay jéego yu doy waar jamono ji ñu nekk booy xool ci Liverpool ma ngay continuer di marquer ay buts mais nag c'est pas c'est pas boo xamante ni war na ni hasard la du hasard mérite la avril di takk 10 man may takk 10 est-ce que xam takk donc nag ñi koy féliciter davantage tout le peuple est fier de Sadio Mané l'international borom le avril incha ñi ngi koy bu euh, baax a baax parce que chaque euh, semaine wala chaque début de semaine euh, maanaam lundi dinañ leen indi l'actualité en bref boo xam ne moo leen di kontaane moom ngeen di gis xam li jot ruus ci toile bi le bale passé gis ngeen la ma leen indi loon tey lii moo jot a xamante ni euh, moo nekk fépp ci plateforme yi alors euh, très rapidement Mister Grégoire l'international Fatou euh, maa ngi naan la sa bi xoolaat ko gëmoo ma waaw bi léegi nga ko man maa la ko wax ndax bu fekkee ni kiiwu rek xool ko ci 33 bi ñu mën a rogalaanal yëf yi alors les amis dañuy ci ambiance bi c'est vrai ni nag semaine bi ñu génn ni titre yu bari génnul li nga xamante moom mooy ruus ba moom mooy artiste bi nekk au actuellement sur YouTube plateforme muy Bril euh, moom nag laa invité tey il est venu il est là sur le plateau donc xaar leen ko léegi léegi ci deuxième partie mu ñëw bégal leen euh, wan leen lu neex loo xamante ni yéen itam di ngeen ci mën a bu baax baax artistes yi lan ngeen di xaar mois de décembre bee annoncé Bril roof na du ngeen roof yéen tamit Bril ibbi na ah ku ne di di clip di xaar sa morom génne li <laughs> ma leen xamal yi ayca 88 euh, bonjour. oui ça va. oui bien et ah <laughs> Fatou ndeysaan Fatou xanaa xamoo Kheucha dafa am vision. ku ne ça va ni bonjour yëf yi nga xam ni sa 88 bii nga war a ni kapaj nee ko kapaj laataa ñuy seeti xale boobu nga xamante ni moo di Mandiaye Seck demain il sera notre invité ici au Parc des de la 2STV maa ngi xool nag ah ba xam dama koy defal mini live comme tous les mardis waaye tamit dañu jëm ci décembre ah je vous rappelle jëm ci décembre ngi waaj benn affaire bu doy bëgguma wax li 2S bi balaa ñu ñuy copier yéen <laughs> ayca ñu dem rogalaan xooli Mandiaye Seck très rapidement ma sa yow li may gis nii ci télé bi doo ko changé yow Aïta Mandiaye Seck c'est parti. international Mandiaye Seck de son vrai nom le Faramareen hors pair merci beaucoup pour cette belle chanson également euh, moo jot a ruus ci toile bi euh, donc defe naa ñaari titres laa fi gisagum de artistes décembre ba nga maa ngi wax ak yéen xam nga déggu leen si yéen message ma ni ma xasaa wax nga gis nga bu ngeen génnewul du ngeen am programme <laughs> décembre <laughs> saa yu moom ñu woo mi ngi lekk xaalisam di noos noosam waaw baax na décembre bee ngi ñëw ngeen di kii naan di xaar ku ne di xaar tamorom génne pour génn génne leen def leen ni bril ngeen génne te bril gis naa ko muy tourné gis naa ko mu tourné yeneen clip ak yeneen artiste bëgguma wax ñëpp ndax xam naa ni waxagu leen ko waaye daal li ma mën a wax ba mën leen ko mooy ngeen génne seen ay titre Fatou nag yow moom nee nga 88 di fi nga koy teg ndax man wax waxkat laa waaye kii wax kii déglu xamu noo waxee sa wax noonu ba da ngay tontu ok man a yow la yow tamit ayca on poursuit toujours les amis je vous rappelle que ni euh, tey la itam euh, chanson yi nga xamante ni jot na ruus ci toile bi euh, bokk na ci titres yi gën a def buzz indil naa leen ko tey yoo xamante ni sénégalais aussi bëgg nan ko xale bi ma ci toppandi moom mooy ki nga xamante ni moom moo di Diaw Diop Didi l'international mon gars sûr ah c'est vrai que de beaucoup de gens ñi ngi naan xëca ak Diaw Diop donoon duru doon nduru alors que loolu amul booy bi dafa ñuul kooku man dama xaw a dama xaw am teint temps yi gis ngeen xaalis temps <laughs> yi dama xaw kii quoi ah macha allah nee leen macha allah ayca euh, bu fekkee ni yemb na rek mën nga ko indi Fatou gis nga 88 628 14 ou 13 bonjour allo. allo. waaw. namu naa wa. eh maa la raw kookal la. déjà tous dañ lay bëggee xam tey moom dama xanaa. waaw yi nañ dugg ko. bi Fatou sama ennemi la sinon da lay coupé. <laughs> wàññi naa ko bu baax waaw wala nga muté ko wala nga muté ko nga wax ak man ci téléphone bi kase après. wàññi naa ko bu baax a baax. voilà voilà Fatou bëgguma man bëgguma moom moom émission yëpp la bëgg ba mu des sama bos. yaa ngi ci jàmm. ñu ngi si jàmm bu baax dañ lay bëggee bu baax. ndeysaan ndeysaan fii la rawee fan ngay wootee. fan ngay wootee. aywa da leen ma dimbali di wàññi seen télé yi ak di déglu ak seen téléphone portable ah moom mooy gën bu ngeen bëggee déglu ak seen euh, télé day am décalage alors léegi bu ma waxee foog ngeen xaar 30 à 15 secondes pour mën a wax alors day day day xaw a metti ma jëlaat ki ne ci ligne bi ci 88 628 14 13 bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va, Richard? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Alhamdulillah. Vous allez bien? Oui, ça va, je vais hyper bien. C'est comment? Kiki Cha. Oh, Kiki Kiki Cha, joyeux anniversaire à toi. Merci. Elle nous appelle depuis la France, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je te souhaite la totale. envoie-moi une photo de toi maintenant natif du jour yi euh, gré foog ñu amal leen rubrique boo xamante ne dañuy wane waale seen ay photo ñoom ñu mën a gis seen bopp parce que anniversaire dafa doon lu doy waar ci doomu aadama dégg ngeen. ñu ngi lay souhaiter la totale vraiment. di la ñaanal jàmm ak taw feex ak sutura. merci lépp rek saawaan baawaan dégg nga. amen et merci beaucoup waaw waaw waaw alléluia alléluia <laughs> boss boss alléluia uh, ayca ñu ngi koy bu baax a baax a baax ah, uh, Christine la tudd uh, ñu naan ko Kikisha mbokk Grégoire la njaago la <laughs> Grégoire ki sa la njaago la ni yow dégg nga ñu ngi koy kon bëggoo ma naan ko alléluia alléluia <laughs> bon anniversaire à elle ñu ngi koy ñaanal jàmm ak tawfeex depuis la France 88 bonjour bonjour Yaya Sarr. oui bonjour. ça va man maa ngi nii. ah. ma ne maa fi duggoon sànq nii. ah yaa duggoon léegi léegi nii. toujours damay toujours damay jéem nag mais xam naa yàlla moo def tey ma soog a dugg. ah ok des faatu Fatou moo lay def yooyu day gis sa appel da bu la xàmmee bu xàmmee ni yow da nga daan woote. waaw da da lay jéem a nag ci ligne bi faatu la. ah dëgg la de ñun moom waa Sokone dañu lay déggee toujours. waaw heure boo commencé toog jàkkaarloog yow ñun waa Sokone. waa Sokone. waaw am naa fa xarit El Hadj Thiam borom bu mag bi. ay waay suñu mag jooju. man la ah, Marisa Sokone ah waay nit ku baax El Hadj Thiam. ah yow kenn gën jàppal ma heure bi jàppal ma heure bi El Hadj Thiam moomu daa doon nit ku baax. suñu suñu mag bu baax la moom El Hadj Thiam yii ku mu photo wul photo woo. déedéet maa la wax lii de. mais yaa ngi ci jàmm bu baax photo kay moo ko mën maa ngi ci jàmm yow na dama duggoon juste pour di la kii rek di la bëggee bu baax a baax. di la ñaanal foo mun di toll tamit. def na ci kanam ndax ñun say fan la lañu. dëgg yàlla man moom toujours damay jéem pour dugg. ndeysaan mais du ma mën a dugg. ndeysaan def nga lu rafet mais nag comme jot naa tey kontaan naa trop man itam am leen jàmm yéen waa 2STV yëpp. ayca merci beaucoup. nekk si jàmm bu baax. ñu ngi lay kontaane ñun itam dégg nga. Oh là là, ça fait plaisir hein, de recevoir des appels un peu au Sénégal et dans le monde. Merci beaucoup à toi Kikisha euh, ñi ngi lay euh, yónnee ma sa photo parce que yow foog ma teg la ci télé bi tey euh, gërë mën la gis mbokk njaagoom nga foog mu jàllale la les natifs du jour ñi ngi leen di waajal rubrique bu bees boo xamante ni di ngeen ci mën a gis lu bari a passe de salam à Baye Touti depuis la cité Comico 4 s'il te plaît si possible <laughs> loolu doo koy lire ayca Baye ngi lay kontaane bu baax a baax ah mi nga xamante ni mooy Baye Touti itam bu baax a baax a baax cité comico euh, di ko jox wàccu waaye merci beaucoup à toi dégg nga alors rapidement l'international gré alors ma ki ne ci ligne ba pare 88 628 14 ou 13 bonjour. allo Kheucha. oui allo. allo allo. oui va. Kheucha namu naa la. yee la raw yaay baax. gis eh pourtant damaa kaf nii de ti shirt laa def. Eh, li def fort na de. dama relaxé nii rek mais eh, yow gis nga sama sañse bi Thiès. eh baaxee ko. non bi may dem Thiès Thiès noonu ci soirée Bastung bi gisoon nga sama sañse bi. non gisuma boobu demal sama Instagram léegi di ko fa fekk ma teg ko tout noir laala laal gars yi naan xëcca day takk cravate bi déet man leen non non non bi da nga koy teg ci kawam noonu rek mu ànd ak dàll yi nga xam day tas yaakaar bi. en tout cas macha allah. wàññil ma télé bi s'il te maa ngi déggaat sama bopp te loolu daf may énervé c' est énervant. <laughs> waru waru ah, Pawlish Mbaye na torop chaque jour ma dëgg dëgg mais te la nga yàlla dogal nag. <laughs> nga ne ma lan nga ne lan <laughs> yow allo. allo oui. oui nga ni. man émission bi neex na torop chaque jour ma bëgg te teel ak yàlla doog a dogal. ndeysaan ndeysaan Fatou lay téye Fatou ay def yooyu moom des fois day téye nit ñi. mais maa ngi ma benn Didi. ma maa Didi Diaw rek benn. benn ñu bëgg fii. benn kan. Didi Diaw. Didi waaw boo Didi laa lay may léegi léegi nga kontaan fooy wootee ni yow. d'accord merci beaucoup. fooy wootee doo ma ba pare balaa ngay def. Daara Jolof. Daara Jolof. waaw. kontaan naa ci yéen waa Daara Jolof yëpp dégg nga. ok merci beaucoup merci merci beaucoup. ñu ngi leen di kontaane Daara Jolof gépp itam di leen jox seen wàccuwaay Fatou sa yoon nekku ci aw ma benn gàcce. émission bi jeexagul defal naa waan 88 beeg lay sagal noonu Eva la moo tax nga bëgg ay tontante yow Fatou yow li ma la xamal bu ma ko waxee si télé bi 88 628 14 13 bonjour nouveau euh, xaar <laughs> allo allo. allo oui. oui ngi baax. ku fi xolam baax. Eh, nga toog yow. <laughs> sinon. ça va. c'est comment noo tudd. man Nay Marème. Nay Marème loo sant. Guèye. Guèye Ndiora Bassi Tarkalla yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm waaw. aada sombi aada laax aada Dakar <laughs> maa ngi lay nuyu <laughs> sama xarit bi. nga xam nga ne yow nga mën nga bëgg yow mais na xam yow Guèye Ndiora. ça va ba lépp nice. lépp nice. yaa ngi chill. maa ngi chill man laa bëgg oui. na ngeen def fan nga dëkk ci Kaolack. Saara. Hmm? Saara Touba laa dëkk mais damaa ñëw Kaolack fan yii. ah taay da nga ñëw Kaolack looy def Kaolack. Hmm? looy def Kaolack taay. <laughs> ah damay changer air. tuuti quoi. oui. <laughs> mbete airu Sénégal du benn airu Sénégal benn la de fépp am poussière. <laughs> non mooy loolu. poussière gi daal poussière gi ndar la wàññeekoo quoi. waaw ah, waaw mës nga de. man da nga ma bëgg nii. bilaay. tu en es sûr. bien sûr non nag maa neex. ma man ah. da ngaa mën a ah. mbir mi tol na foofu. bilaay da ngaa ah bon. kenn du yow. ah. bilaay yow. kon maa ngi toj koñ bi nii quoi. non yaa ngi toj koñ bi. et pourtant je ne me rends même pas compte pour une Ibou Maquette. je ne me rends même pas xam nga loolu. comme waaw commencé jamono bàyyi na la xam. yow eh bàyyi li ngay teg nii. bilaay yow. saa tëdd yow ñaata at nga am. man waaw. 17 ans. 17 mm. nga wax wax yu rëy yëpp. <laughs> xale yii. am nga fit de. <laughs> man laa bëggoon. Eh, yow yow li nga wax ci télé bi nii baa bu ma la sama numéro doo wax leneen. non déedéet. ah yow mii. dañu fo Grégoire moo bëgg xa moom nee na ma bu fekkee dafa am xale bu woote bu boo xamante ni 15 ans la wala 16 ans 17 ans dee ma jox numéro moom yooyu la bëgg nee na yéen yéen mineur yéen mineur yi lay wër <laughs> léegi. waay léegi ma jox la numéro Grégoire. waaw mais man sa bopp bëgg. mais léegi baa ma jox la numéro Grégoire. man sa bopp laa bëgg. <laughs> jëlal bi ba pare rek yow it ah. waaw waaw. Ah. yaa ngi noté. waa 823. waaw. 13. ba léegi joxoon numéro lii lay jox. non je te jure que numéro doon jox mais comme que wax nga ci lii baay ma bàyyi ma sedd. man daa sa bos laa bëgg. waaw amul problème léegi bul coupé faat jox la ko ci suuf dégg nga. waaw ok. ayca jëli ko. merci beaucoup euh, très rapidement gërë songal benn benn benn benn clip ñu seetaan et puis ñu ñëwaat très euh, dem euh, def ci ambiance bi ay tëb Didi Diaw Diop c'est parti international Diaw Diop Didi merci beaucoup également ñi ngi koy kontaane bu baax a baax donc California my baby California my don't touch me babe <laughs> ayca contentement la ñuy ànd ak moom euh, merci beaucoup Diaw Diop Didi je vous rappelle que toujours sur le 88 628 14 13 ngeen ñuy mën a joindre ñu mën a wéyal waxtaan bi mu gën a neex ñu dem song nag ki nga xamante ni moo di Laty Diop de dégg ngeen bàyyi c'est une chanson boo xamante euh, génn na mais man euh, nekkee man daal xaw ma lu ne ci réew mi man musuma koo teg de musuma koo teg mais démb laa dem di seeti sama yaay ji Salimata Gueye Ndioro yaayu Mari Ndiaye yaayu Kheucha fekk mu teg ko ma ne ko mais c'est une ma jël ki ne 88 628 14 ou 13 bonjour. Bonjour Hassan. Oui, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, je vais bien. yaa yaa ngi baax. bien maa ngi baax. man maa ngi baax ku fi xolam di baax. kon tabarakallah. ay dama nga toog yow. <laughs> <laughs> sinon. ça va. yaa ngi ci jàmm daal. oui. alhamdulilah fooy wootee ak noo tudd. allo. allo. ma ne noo tudd ak fan ngay woote man Asta Diop. depuis Saint-Louis. depuis Saint-Louis du Sénégal. oui. ndeysaan bizarrement da nga bonjour ma ni ah kooku tubaab na de nekkee ndaat ndaat la allo. allo. waaw yaa ngi may dégg bu baax. waaw maa ngi gaaw a énervé de bu may wax da ngay tontu ay yow su may <laughs> su may gaaw a tontu foo dëkk ci ndar. Daaru laa dëkkee. yaa ngi dëkkee Daaru. oui. ana waa Daaru. ñu ngi fi ñu ngi fi ñu si baax. Mm, boo booy seet man sama. mais xasaa est xam nga ni man man yow laay bëggee. damay compter damay compter ban année laa fa doxaanoon Daaru Daaru amoon naa fa gel. waaw temps may commencé doxaan noonu. ii kooku xam naa ko. kan la. mooy kooku noonu. kan. Ah! <laughs> yow ni nga ñemee yàlla yow mii yow man waxuma dëgg yow nga <laughs> nga ñëw <laughs> xale yi ñoo ñeme yàlla quoi yow damay wax nii rek par hasard yow nga bëgg ko dëggal nii naan ay xam naak ko ah. nga xam na. gis man alal procureur la boo nga xam na. Ah! <laughs> yow waxalal sa bopp moo gën procureur yi alalu procureur yi nga nekkee di jël nii gërëwaat rek leen lan la wax nga naan alalu procureur la boo ma laalee di nga xam. rek leen yow yow yaa war a téye sa bopp ñu dem seetaani Wally Balago Seck wala ñu xojjalaat ki ne ci ligne ba pare c'est sur le 88 628 14 13 bonjour. bonjour. alors vos vidéos mën ngeen koy yónnee ci 78 463 34 15. noo def yow oui maa ngi lay nuyu naka mu. allo. oui je t'entends yow xanaa ngay soog a yeewu. waaw waaw. waaw ah, lu mu demee noonu. ça va. ça va bien et toi. naka. ça va nice noo tudd. Hmm? noo tudd. ça va. noo tudd. Abiba. ah. Abiba. Abiba. Mm. Abiba chanteuse ou bien. non non. ah yow da ngaa tudd sa Abiba rek. Mm-hmm. ok fooy wootee. Kaolack. Kaolack nangaan. tu hmm? es si calme Abiba ba pare daf mel da nga naju ci téléphone bi. lan la pourquoi tu n'invites pas Abiba. ah. pourquoi tu n'invites pas Abiba. pourquoi j'invite pas Abiba. Hmm. Abiba gëj naa def sortie Habib Baar gëj na def sortie bu defee sortie rek dinañ ko invité incha allah loolu du ah. problème. yéen ñaar da ngeen am traité. Eh, eh, yow waxal li la wax loo <laughs> dinaa ko invité. boo ko invité wul daal di nga xam. waaw dinaa ko invité amul problème. <laughs> ay Sénégal ay ca euh, gërë songal ñu xool. waaw gën a lii lan la gën a ko a songal Wally Seck ngay teg lan ah ñag nga nag ñag nga Grégoire ñag la xam ngeen loolu ayca mën nga song Laty Diop dégg ngeen bàyyi ñu seetaan ko très rapidement et on revient c'est parti <laughs> Youssou Dieng waaye <laughs> waaye Youssou waaye <laughs> nee na ndeysaan grand bu baax la ñu ngi koy kontaane bu baax a baax ah euh, grand Youssou Dieng di ko jox contentement ak mbégte bi ñuy àndal chaque jour euh, ci moom ji liggéey bu rafet bi muy def ci biir Faramaren gépp ñu ngi koy kontaane alors rapidement euh, Gré arrêtel nag dégg nga dama bëgg nga arrêté nee naa la natif du jour yi dale dale daleen daleen envoyé seen photo ci 78 463 34 15 ñu defalal leen benn rubrique à part parce que bés day dafa doon loo xamante ne nekk ci euh, xolu doomu aadama kon nag da leen koy waaj dégg nga alors 88 628 14 13 ñu jël keneen. en direct bonjour allo. Fatou doon wax ak moom <laughs> Fatou sama xala dal di nga bàyyi xale yi de gis nga li nga def loolu dégg nga dégg nga dégg xale bi alors Fat bi euh, Fatoumata Bintou Rasoul ton papa t'aime fort et te souhaite un bon anniversaire Fatima moom mooy Fat ba bu ma kii 88 628 14 13 s'il vous plaît euh, ba tey ngeen mën a ngeen mën a dugg ñu mën a waxtaan ak yéen euh, très rapidement on poursuit les amis euh, dem seetaani ki nga xamante ni moo di Karabalik bu noppee nag dem ci deuxième partie bi wax leen li Expresso ñëw ak yéen ñi nga xamante ni yéen ay nos fidèles clients Expresso baaxee leen loo xamante ni lu lu spécial lay doon préparez-vous davantage dinaa am ñetti numéro yu ma woote léegi léegi may leen ay nganjaay yoo xamante ni mën nañ ko jëli foofu bu nga xamante ni moo di expresso très rapidement Karabalik Allah euh, ñu moom la ñuy seetaan bu ñëwee nag gré doog a dugg page pub bi et on revient c'est parti music merci beaucoup Kalabalik euh, ci euh, bi nga xamante ni euh, il a regroupé pas mal d' yoo xamante ni macha allah ñoo ko def mu neex trop ah une très belle chanson également donc ñu ngi ci deuxième partie bi les midi le temps de vous dire les amis que ñu ngi ci deuxième partie bi <clears throat> te xam ngeen ni chaque deuxième partie ci la ñuy dalal sunu invité du jour histoire que moom itam mu indi leen lu bees lu spécial xam naa ni yéen a ngi toog seen kër di ko xaar mi ngi nii toog moom itam léegi mu ñëw ma jël ki ne ci ligne bi ba pare ci 88. 628 14 13 Bira xale bi lu mu tudd Fatou Rokhaya wala <laughs> may laajte rek <laughs> ayca 88 628 14 13 ma ma ma koy rubee na ngeen def alors euh, Gré balaa ñuy dem ci pub bi s'il te plaît ñu dugg rek ci euh, wala wala waaw wan ma euh, élément bi xale boobu ñu war a souhaiter joyeux anniversaire di Kikisha sunu fidèle téléspectatrice boo xamante ni ma nga ca France toute l'équipe de la 2STV ñi ngi lay souhaiter la un bon anniversaire joyeux anniversaire à toi toute belle et ravissante également la reine du jour Kikisha from France merci beaucoup joyeux anniversaire à toi ñi ngi la koy ñaanal nga dund ba say may di baawaan alors ñu dugg dem seetaani et forfait yi nga xamante ni moom la leen Expresso indil c'est parti. tout simplement magique forfait magique la dee internet ak appel tànnal sa bu la neex mini magique à 500 francs 7 jours la waaye yow neex na di super magique à 990 francs <laughs> maa la ko wax de méga magique à francs mbir mi neex na kenn xaaru ko woon loolu la extra magique à 4900 francs tous valables 30 jours profitool ci deal yu baax yi en tapant étoile 11 11 10 étoile 11 11 10 Expresso merci beaucoup alors très rapidement gis ngeen maak sama feuille euh, dafa am euh, expresso lu bees yoo xamante ni euh, indil na leen ko pour ñi nga xamante ni sont fidèles nos clients comme Guèye Dora Ña Mohamed ak Amadi Hott donc préparez-vous maa ngi leen di woo léegi léegi en direct vite fait wax leen lu baax li nga xamante ni expresso indil na leen ko waaye également le temps de vous signaler li nga xamante ni moo di mini magique bi ñu leen indil c'est à de 500 francs 500 francs nga am 1 giga connexion internet 48 euh, euh, minutes d'appel euh, sur tous les réseaux waaye tamit 48 minutes d'appel vers Expresso donc loolu c'est à francs seulement yomb na donc képp ko am sa li nga xamante ni moom Expresso wala ngeen wuti ko léegi léegi mën nga ko dem jëndi maanaam francs nga am giga connexion internet loolu neex na 48 minutes plus sur tous les réseaux waaye aussi 48 minutes vers Expresso valable 7 jours am ngeen aussi extra magique à francs boo xamante giga connexion internet la 500 SMS pop pop pop illimité nag vers tous les réseaux loolu neex na di yéen euh, wala vers Expresso la boobu vers Expresso la 20 plus SMS illimité vers Expresso plus minutes valable jours waaw mais dina ko jeexalam ca Expresso ñi ngi de. méga magique bi nag moom c'est à partir de 2000 francs moom da am 5 giga connexion internet plus 250 SMS euh, heures euh, euh, heures de temps yoo xamante ni aussi plus 250 euh, Fatou <laughs> Fat doo téye sa appel bi <laughs> Fat lu ko dal yéen lii <laughs> la appel ba noppi ayca euh, cinq heures de temps boo xamante ne aussi da ngay am plus cent cinquante minutes sur tous les réseaux valable trente jours super magique bu aussi neuf cent quatre-vingt-dix francs la euh, trois giga connexion ngay am ba pare am cent minutes d' appel plus cent SMS tous les réseaux dégg ngeen super magique bi 900 990 euh, francs 3 gigas 100 minutes plus 100 SMS tous les réseaux valables 30 euh, jours alors très rapidement ñu woo gagnant yi nga xamante ni semaine bay passé euh, ñoom la Expresso jox yenn yoo xamante ni macha allah ci ay affaires donc ñoom bu ñu rapproché woo rek ci sunu ay point dina dinañu gis. li nga xamante ni moom la leen di indil bokk na ci Guèye Dora moom laay njëkk a woo Guèye Dora moomu nga xamante ni ah, waaye yow tamit lu mu tuddati aywa ah, sa bari na di. xaar leen xaar leen may leen ma tuuti rek voilà une deux trois quatre cinq six ñu woo Guèye Dora woo ko en direct moom tam wax mu rapproché ci yenn agence yi nga xamante ni moo di Expresso gay Dora vingt 70 884 05 alors moom la ñuy njëkk woo kii gagnant la boo xamante ni xam naa bu buñ ko woowee moom itam ni ko mu dem rapproché wu gars yi mën koo teral wut leen seen ay puces expresso ci ngeen di mën a amee yi ni mel yéen ñi may seetaan maa ngi leen koy wax daw leen gaaw léegi de man xam naa ni sama sama menn mi bu ma paree moom ba laal ko ci sama téléphone bële kenn waxatu ko dama bëgg gagné ni ñëpp ay ca 884 Guèye Door la ni woo ni en direct waaye moom itam da jotagun ko ana Guèye waaye Doro ah. Gueye Gueye ça va bien et vous vous êtes en direct sur la 2STV waaye ah, ça va bien alhamdulilah alors dañ la bëggoon wax nga rapproché wu ci benn ci sunuy point expresso ndaxte am na ay nganjaay yoo xamante ni euh, dinañ la ko baaxee incha allah ah. waaw waaw ay ca ñu ñu mën nañ lu ne expresso mën na lu ne osez rêver rek tarkal la ngeen mën a gañe ah, boo demee ba foofu lépp loo bëgg rek incha allah euh, di nga dinañ la ko expliquer dégg nga ah. rapproché ci benn ci sunuy point rek. Hmm. Ah, ayca ayca kontaan naa merci beaucoup Guèye Dora. merci beaucoup. on appelle quelqu'un d'autre gis nga euh, lu mu tudd euh, sama yaay Aïssatou yaa ngi may def lu neex. <laughs> ayca <laughs> ñaa Mohamed la ñuy woo ah ñaa Mohamed moom itam 70 484 aha 58 voilà ñu woo beneen gagnant 3 rek la ñu peena ci des après moom itam ñu xool euh, euh, naka lay toogee ak naka lay yëgee fii yi ndeysaan koo kontaan na de gay njoora bu neexee kontaan de ayca ñaa Mohamed Sénégal nag gars yi dañuy bañ sa téléphone bu sonné ah. benn yoon euh, waaye ñaa euh, Mohamed mu baax mi waroon jëw ñaa Mohamed ah, noo def yaa ngi ci jàmm alors vous êtes en direct sur la 2STV da nga bokk ci gagnant yi nga xamante ne Expresso euh, war na leen dara jaleel ci li nga xamante ni moo jë jëm ci Magic Game bi ñaa yaa ngi may dégg allo ñaa waa ñaa Mohamed yaa may dégg bu baax ah. ma ne da nga bokk ci sunu euh, gañaay euh, yi jëm ci Magic Game bi ñaa <laughs> Mohamed allo Mohamed ñaa foo ñu woowaat ko ndax xam naa ne Mohamed mi déggutu wolof nee na gàñña euh, den ko waat moom ñu dem ci Amady ot moom mooy euh, ki nga xamante ni moom mujjee gagné tey mhm. ayca ñu woo euh, ki nga xamante ni moo di Amady Hott donc profitez-en euh, les amis ngeen dem wuti seen puce expresso ngeen mën a bokk également ci gagnant yi nga xamante ni dinañ leen joxe ñoom tamit seen tour chaque fois wala rek xam naa bii di ñëw ay sot dañuy joxe seen tour rek noonu ndaxte tamit woote gi day xaw a jël temps daal ah yaa ngi lekk <laughs> oui simili alors bonjour. ayca Amady Hott ñi ngi lay nuyu. ba ba yaa ngi ci jàmm rek. macha allah vous êtes en direct sur la 2STV. da ngaa bokkoon ci Magic Game bu Expresso. Ah, waa léegi nag da bokk ci gagnant yi. alo waaw mani. waaw waa ñi ngi lay nuyu bu baax a baax yaa ngi ci jàmm. mais vous parlez français quand même. Hein? vous parlez français. ah. est-ce que vous parlez français. quand. j'ai dit est-ce que vous parlez français aussi. non mi nanaani dum de. mi nanaani man itam mi nana man itam mi nanaani pulaar mi nanaani wolof. ah man dégg naa wolof waa léegi. Ah. xam nga gagné gagné gagné gagné nga yow daal gagné nga expresso. Ah, waaw gañaa bi. yow ah, waaw waaw léegi loolu da cee bokk yow yow bokk nga ci loolu. Ah, waaw léegi nag xamu nuy def. da waaw waaw yaa ngi may dégg. waaw dégg naa gañaa bi. waaw waaw léegi da ngay <laughs> da ngay rapproché ci benn euh, ci sunuy euh, stand euh, ci expresso nga dem boo demee foofu hmm. tarkal la dinañ la jox li nga xamante ni macha allah gañe nga ko ci Magic Game hmm. ah. waaw waaw. bi la gën a jege rek yow demal ci agence yi wala fi nga xamante ni fa nga demoon euh, léegi yow nga xamante ni dinañ la mën a jox sa nga ñaay. kontaan nga. waaw jërëjëf jërëjëf dégg nga. après nga ñëw ma jàngale ay cours olof parce que am na solo. waaw <laughs> ayca ah. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf ñi kontaan ay ayca ayca jërëjëf. waaw merci. merci beaucoup door vous Dora Gueye euh, Mohamed Nia ak Amady Hott ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax ñoom dinañ rapproché wu ci benn ci sunu ay euh, euh, lieu yoo xamante ni falal leen di dara jaale li nga xamante ni moo jëm ci Magic Game bi wax naa ko léegi léegi ñoom nag tey dinañu am ci extra magique bi ci loolu la ñuy lan leen di baaxee seen ay mbir donc ci extra magique bi la ñu gagné demee dinañ wax ci li nga xamante ni macha allah moo jëm ci extra magique bu 4900 bi mais ñoom tey bu fa demee dinañ gis seen ay nganjaay merci beaucoup Expresso très rapidement Grégoire la ca topp moom yaa xam instant yi nii bu yóbboo rek nga rogalaan ko ñu dem seetaan ko très rapidement et on revient maa ngi lay yónnee léegi léegi vidéo on serait chez vous c'est parti Dame Sène bu de son vrai nom l'international mon gars sûr ñi ngi koy kontaane bu a baax merci beaucoup Gréa pour cette belle chanson de Dame on poursuit toujours euh, yónnee naa la yenn ci ay vidéo on serait chez vous xale yi euh, vidéo ndeysaan ni ngeen toogee di seetaan di bànneexu itam léegi-léegi dinañ leen wan seen bopp ngeen mën cee gën a bànneexu euh, ma jël ki ne ci ligne bi 88 628 14 13 bonjour allô allô sava oui ça bien bien toi yaa baax. maa baax. man maa ngi baax ku fi xolam di baax. kon tabaarakalla. eh demal nga toog yow. eh demal nga toog yow. eh fu laa ko teg. <laughs> mu nag. oui. nice noo tudd. mami. mami. Ah. mami tu nous appelles d'où. de Tivaouane. depuis. Tivaouane. Tivaouane. waaw. ani waa Tivaouane. nii bi. yéen a ci jàmm. ñu ngi ci jàmm na mu naa leen de. a ngi cool di enjoy seen émission. waaw ñu koy noonu la dofu leen c' est heure mooy heure bu baax bi. waaw. c' est l'heure qui sinon ça se passe. ça va. yaa ngi koy yëg. yaa ngi koy yëg bu eh, baax waajal Sidi Diop bi waay waajal Sidi Diop bi ñu ambiance tuuti après ah alors naka mu yow. maa ngi fi. a ngi ci ciil quoi. waaw ñu ngi fi. Ah. <laughs> oui ma ne lépp a ngi ciil quoi. waaw mi ngi si. ngeen toog weekend bi gisu leen xëcca namuma di jooy na naka la demee seen weekend. jooy yu metti sax. ndeysaan da ngeen di wéet par la force la lool. bye first. mais mais ñëw na je suis de retour. waaw et je vous prépare plein de trucs plein de choses en même temps. Mm-hmm. dégg ngeen. waaw ñuy békk. kontaan naa ci yow bu baax. maa gën a kontaan. ayca nuyul ma famille bi leen maa ngi leen di bisu ñoom ñëpp dégg Alors, merci beaucoup.

ah Sidi Diop merci beaucoup yëngal yëngal ah Sidi est là ñëw na euh, Sidi <laughs> Sidi Sidi Omar nee na balaa kenn di la rey day jaar ci moom rey ba pare bu reesee nag ñu jaar ci yow kon jox na la bakkan mais bakkan gi mujj gi rek jox na ko moo géet bët ki dem moo njaay nee na léegi pare na ci bakkan gi léegi ruu lay joxe <laughs> waro kii te kii <laughs> qui te peut dans ce monde personne ñi ngi lay kontaane bu baax a baax l' international Omaro Gueye ah ki gàddu bës bi di daaw ak moom nee na bee mujjee jël moo garaaw daal <laughs> alors euh, ñu song li nga xamante ni moom moo di euh, euh, rubrique TikTok avec l' international le shop moo gas sur bu fekkee ni kale na rek gërë rogalaan ko ci suuf nga xool on serait yónnee naa la ko néew googu mu noonu ayca wan ma euh, li nga xamante ni moom moo di TikTok yi ñu seetaan ko et on revient. borom WR chips pomme de terre du sama style. ndax xam nga góor yi yéen ñëpp muy moom mu yow muy ñeneen ñi ay médicaments ngeen commencement bi rek ngeen di faj noo leen def effet secondaire yi génn. kilikilam feeya. ABCD. du ma ko def man sem de la bàyyee may doomu géwal jotuma jàng anglais. Okay, fine. ma toog yow yaa ñàkk kersa. am ABCD. du ma ABCD def. maa ma a baara mbay. yonent bi saa boo julee ci yonent bi ñaari malaayika dañ koy fab ñaari malaayika dañ koy fab yët ko ko fam nekk ci madina yët ko ko fam nekk ci madina ne ko Ibra Gueye daan ne ko Ibra Gueye doomu diw ak diw doomu sëñ moo jëli ci bakkook ñoom waaye Sénégal ñoo fi waxaat li aawo bonne santé ay waay ñaareel Ebola ñetteel mooy sida ay ñetteel asthmatique salibaté coronavirus moom la jàppee ba lay rey ba nga naan jànk loo bëggoon xanaa déedéet. sérieusement xamee woo ma. déedéet. nan laa nan laa lay xamee. fu ñu sa tur. man la Jaba Star bu seen petit balai. Jaba Star bu seen petit balai. hee balay taxaw waaye bali sëgg yow sax yaa ngi may yokk reer xamoo bintu taam moom mi xam ñépp xam lépp. Merci beaucoup le shop pour les rubriques TikTok merci beaucoup mon gars sur bébé Fatima c'est de la part de ton papa d'amour Bira mi ngi lay souhaiter la totale et toute l'équipe également de la 2STV bon anniversaire grandis en sagesse bébé je t'embrasse fort moi ayca bon anniversaire Rokhaya bëgg bokk ci tur tur gi yow naan ma bokk bébé Fatima bu <laughs> bira nee na tuddeewu la ka xamul te tuddeewu la ka bira nee na daal nee na ma xëcaa nee ko tuddeew ma man ngaay laa ko tuddee bira ko wax de mi ngi nii toog moo ko wax fii ma dégg jottali naa la ko dégg ayca <laughs> on poursuit toujours les amis euh, ci 88 628 14 13 laata ñu leen di présenter un garçon boo xamante ni il est exceptionnel il est formidable waaye laata ñu koy xool nan dem xool on serait chez vous ba pare ma doog koo dalal ci plateau bi on serait chez vous ma xool ni ngeen toogee woon c'est parti ay ca gëre Moussa xam nga bii waxal xësa li nga xam ne neex na dafa foog dama laa bëgg ba bëgg ni ma la bëggee bu sama ndey bilay walay bëgg naa la yaay sama caabar yi bi tey caabar abadaa ay wala Kheucha yaa ngi may doog a laal sama way ndeysaan daa di jëba dégeen mbaay jëb jëba dégeen mbaay ku la faarek dégeen Kheucha doo seen maas doo seen morom doo seen màppandoo barki yonente bi bég nañ daal di depuis la France. 88 122 14 13, bonjour. Bonjour, Oui, bonjour. Avant, alors, je ah dama toog xam bi Kheucha commencé animé ba tey ngeen gëj a añ heure. dama seetaan pare animation xale laay seetaan. Ah, dama war a gont tey école. waaye yow booy gont nag nga lekk mystique. <laughs> ndeysaan ndeysaan ndeysaan mais jugal jugal toggal ko waaye booy tamit mën nga lekk biscuit rek parce que man lekk naa biscuit jàng ba tàyyi nee naa la 11h 13 du ci teg añ luy loolu yow kon añ ba du baax de foog nga sitaan ba pare doo koo teg wala ngoy jéem a baaral xoolleeg ñoom seen ak def sa ay tànn ak teg na le alors les amis le temps de vous présenter un garçon d'une dimension extraordinaire xam nga lu tax nit ñi bëgg ko moom euh, que booy xool euh, il est venu différemment ah booy xool euh, ay tempo voix fois day am tuuti différence fa tel ki yow ñu dugal suñu artiste ba pare euh, ay tempo voix am <laughs> yaay Fatou waay 88 628 14 13 ñi ngi présenté artiste Fatou dugal ko salaamaaleykum bonjour allo Fatou xam nga ne amoo fit da ngay bandi bandi <laughs> fit maay wax man a wax ji de les amis xam naa ne yéen a ngi toogan seen kër di ko xaar boobaak léegi ñëw na Bril 54 euh, naa ko laaj nag 54 yi moom mooy lan waaye daal man xamee naa ko Bril euh, donc moom la ñu invité tey euh, amusez-vous bien avec ce titre bi nga xamante ni actuellement ça fait le buzz sur tous les réseaux sociaux c'est parti et c'est à Bril go oh là là une très belle chanson également euh, temps yi nag moom mooy def buzz sur TikTok et sur euh, toutes les plateformes également ñi ngi koy kontaanee Bril et l'invité du jour waaw waaw waaw bëgg naa lii de lii bëgg naa ko de kàlla macha allah le temps de souhaiter joyeux anniversaire avant ñuy dugg ci Bril euh, une jeune fille boo xamante ni fii baax na le cadre bi nii mu nga ca France donc ta maman te souhaite un bon anniversaire Fatou bàyyi ma jàllale ko ci yow rek mooy ki nga xamante ni moo di Nani Fatou Nani Fatou bon anniversaire et joyeux anniversaire anniversaire Villa Total ah et grandit en sagesse maman t'aime fort maman t'adore et t'embrasse fort également yow loo dund doyul tarkalla xam naa ne yaa may jox nag sama cadeau nani faatu yow yow <laughs> yaa may jox cadeau yaay booy man man comme ko wax naa ko fii te jaarale nga ko ci faatu waatal faatu ni nga xëcaa bu paree jox ko sama numéro nga jox ma sama cadeau ci li wax dégg ay ca bon anniversaire waaw foog ngay gé foog des foog nga doon géwal <laughs> ñi koy kontaane les amis comme vous voyez euh, notre invité Senghor nee naa leen moom laa invité donc dama koy bàyyi mu nuyoon teeg yéen ba pare ma doog a dugg ci waxtaan bi Bril maa ngi lay kontaane di la Chirap di la wax bonjour et bienvenue au Parc des Princes. yee bonjour euh, Ressa maa ngi kontaan bu baax a baax ci invitation bi. Hmm. aussi di euh, profito di nuyu samay fans di nuyu sénégalais yëpp. nit ku ne ci fi nga nekk maa ngi lay nuyu bu baax a baax di jox cër bu baax di la jaar bu baax baax Bril la maa ngi ak yéen. contentement lañ ci am démb am na benn jeune fii mi ngi ma message nan ma enfin parce que <laughs> chaque jour xëcca kañ ngay invité Bril kañ ngay invité Bril mais dafa mel ne fan si namoon nan la de. et puis yow doo def ay sorties yu bëri en fait. namoon na bon des fois damay toog bon nekkul tout le temps damay génne. boo seetloo la plupart fin d'année lay génne daaw ci heure bi maa ngi doon génne ay namante. ay bras si la bokk. donc après une année damay toogaat ak euh, Covid bi confinement bi daf ma permettre ma toog liggéey benn projet bu bees boo xamante ne ci laa nekk nii di commencer promo bi. cëgin bi lu ndaw la ci rek mais am na yenn yu bëri yu ñëw balaa fin d'année bi incha allah. man daal naa yu ma gis <laughs> te dama ko wax ko ko ko ñu ngi lay kontaane bu baax a baax ñun itam di la dalal ci plateau bi euh, depuis Covid bi c'est vrai que ni artistes yu bëri génn nañ ci te gis nañ titres yi génn yëpp. Mm-hmm. dafa def étincelle dafa mel na yéen. bu ngeen gënee am taaw toog seen kër. ci ngeen di gën a mën a inspiré wu pour bind. that's right waaw da ngay dañu amoon benn benn benn temps boo xam ne dañu amoon. boo xam amul dérangement amul dara kenn dem kër kenn donc du coup da ngay toog yow kese boo toogee yow kese en tant que artiste boo xam di nga mën a créer lu bees donc moo tax ci euh, période boobu yëpp affaire yi ngeen gis may génn nii donc enregistré nañ ko bu yàgg donc période boobu la ñu benn projet tuddee ko multivers. donc multivers c' projet boo xamante ne soo déggee multivers donc y' a ci biir mooy multiple ak univers. Euh, fekk la ci sa univers de xool li ngay def ma ànd yow def lu mel noonu wala lu méngoog lu mel noonu mm-hmm. donc ma ànd ci ak OMG ànd ci ak Soxu Bébé l'autre fois gis naa ko fi mu doon tamit ku am voix bu puissante mm-hmm. ànd ak Omzo Dollar waaw l'un des meilleurs rappeurs au Sénégal ànd ci ak Bastoum l'ambianceur du pays mm-hmm. ànd ci ak Pape Birahim xam nga moom il a il a une voix magnifique donc ànd ci ak Just Beat un ami beatmaker ñu def benn affaire boo xam ne moom ñoo ko def donc d'habitude sama son yëpp maa koy composé mais ci son boobu noonu mu ngi tudd warul demee ni ma ci ak moom ñu def beat bi quoi ak Edmo Flow. Edmo Flow osé. il est venu en tant qu'artiste aujourd'hui mais am na beneen business bu ne ci moom. mooy commencement au son yi dooñu dégg ne Bril on the beat loolu dafa ko dafa dafa cool et que dama koy gis ci way yu bari. Euh, yemoo ci musique kase dafa mel ne loolu sa business bu bopp la nu mu demee noonu. waaye bon je suis en même temps compositeur. d'accord hein, ah, et producteur dama am sama label bopp. tuddee ko Classic Music. Mm-hmm. aujourd'hui je collabore avec beaucoup d'artistes comme Bastoun Djiba Safari Sokhou Bébé Dieyna. et bien d'autres cas su may lim sax du jeex ñoo xam ne tey euh, dañ ma jox confiance. ba pare son yi nga leen di jox nag dafa doy waar gis ngeen son Bassirou <laughs> ay Chibiri yàlla moo def que si ma déggoo ak ñoom. Mhm. ba lu def rek mu neex sénégalais yi. quoi lu ñu def rek mu neex sénégalais yi. donc et puis euh, loolu du arrêté ba tey ñu ngi continuer ci affaire yooyu noonu donc Bassirou mu waajal affaire yu bees artistes yi nga xam maa ngi liggéey ak ñoom yëpp ñoo ngi jaar studio di laaj di wàcc ay affaire yu bees. Hmm. mbir mi toll na foofu. toll na wala weesu na ko non am na beneen bu ma kaleel boo xamante ni aussi man j'ai trop adoré la chanson mhm. euh, gré moom nga may indil ci suuf rek ñu découvrir at ko xam naa ni xale yi gën a mën a bànneexu ndax bril moom tarkal euh, nee naa leen daraam du doy léppay neex alors si c'est calé ñu dem xool loolu et puis on revient c'est parti da nga ko enregistré di nga suivre xaar ma ñëw. ok d'accord monsieur. Yeah, hello le grand. Oui. Dès qu'il a bon, on a ah. deux croissants choco. Deux croissants choco et café au lait. Il n'y a pas de souci, merci. Mais il se fout de moi. Wanné, on jump. Bébé Bébé, tu vas où là Ne m'appelle pas bébé, laisse-moi Mais arrête Qu'est-ce qui se passe Mais tu sais pas ce qui se passe Non mais... Va voir sur fini Mais Warni, t'en voilà. naa ne maa la tooñ moo tax ma lay baalu tey loo wax damay nangu bu la neexee sax na nga aalu dellu si naa xamal ni dootuma la mës a su ma la gaañee sama gaañam sori li ma def tey moo ko est-ce que liggéeyuñ ma yow ku la gën gisuma ko yow rek doy nga ma yow ànd ak yow di reetaan lay moytoo samay noon kon yees lu la neex ci lay dox suba loolu yaay baalu de. <laughs> xale yi xale yi xale yi nag ñu ñu ñu ñu ñu ñu emprisonné sa xol bi de ak sa xel mi. c'est que boo mënee tooñ da ngay mën a baalu. dafa am ñoo xam ne dañuy tooñ ba pare. taxaw yow da ngay tooñ xanaa fas seen kanam non man ku mun tooñ laa nag. ah mais gisee ni tooñ rek laa nag. baal tooñ nag. moo tax dama mën a baalu man bu ma la ku mu baalu mu baal. man Penda xam na ni du tooñ. su ma ñëwee boo ma baalee dootoo am lu la metti yaawe mhm. ma dellu si na mun naa la boo ma bàyyee damay xaaru ji kon bul ma daaw ah, fu ma dem damay ñëwaat ndax tàmm naa la. Ah, ah, ah waaw waaw yooyu ngay waaw <laughs> yii dinaa ko dagg man tam <laughs> di ko yónneewaatee dee leen baale dee leen baale ñun góor ñi dañuy tooñ rek ayta bay di dem maa ngi lay souhaiter joyeux anniversaire bon anniversaire à toi et que cette nouvelle bougie d'ici tes peines et succès t'apporte beaucoup de bonheur santé de fer euh, Aristide mi ngi ci régie bi mi ngi lay béggee di la chira maa ngi koy béggee bu baax a baax euh, Aristide ñu bokkoon ah! euh. un gars très cool moom mais xam rek des fois booy ànd euh, Grégoire mi <laughs> nga génn ci moom euh, le temps aussi de souhaiter joyeux anniversaire à Fifty euh, l'international mbokkum yaay Laty Diop dégeen mbaay moom mooy ki nga xamante ni di garde rapproché bu Wally Ballago Seck maa ngi koy souhaiter la totale Fifty un gars très cool un gars hyper gentil également nee la del def bii rek boo nee nii rek tiital gars loolu mën na maa rey bon anniversaire à toi di la jaajëfal bu baax a baax a baax waaye sama président baax di ko jaajëfal boos bindal tur bi mu naan ma mu naan ma ayib le président mais mon ami euh, projet yi fan nga ci toll actuellement lan ngay di waaw donc là génne naa benn vidéo bu bees ak OMG mu tudd daf may neex. Mhm. donc gis naa neex na Sénégalais yi. Mhm, trop donc le peuple est content et puis je suis mhm. euh, donc maa ngi waaj benn projet boo xamante ne comme ni ma ko waxee sànq yaa Omzo Dollar. def benn son bu bu bu neex. parce que man nay neex rek laa soo bu ma def rek attends-toi que mu neex mm-hmm. donc soxu bébé Bastium Edmond Flow Pape Birahim sama grand mm-hmm. ak euh, Just Beat mm-hmm. aussi donc le projet sort vingt 27 euh, novembre inchallah inchallah donc et puis euh, c'est un projet boo xamante ne sept titres la mais y aura sept donc mois bu jot rek xaar leen bril indi leen vidéo bu bees man maa ngi ko waaw ah, noonu la. am nga fans 2021 bi yàlla na neex waaye. donc tey suñuy fans loolu la ñu am donc dañu gis ñu leen di ay vidéo yu nice ba nga xam dootuñu ñeewati benn musique bu nekk ci beneen dëkk xam ne li li ñu seetaan ci Nigéria wala ci Ghana am na fii Sénégal donc man loolu mooy sama sama mbébét te loolu sama rêve loolu laa nekk donc le 27 nañu am vidéo bu bees ak Bastoum lan la la def gis naa ne sax gars yi. mais loolu dina toog de bas nga wax de. Bastoum def naa benn affaire bu borom King Ambiance. damay def sama yu baax muy bon soxol. ma yëngal ñëpp di nangu nga ni doxol. mais loolay génn ndax da nga ma feeñ te man la ñëpp di wër lu ma def ñëpp lay faj ba mu des yow ndax doof du wër. donc gis naa ne TikTok naa ko rek. mais loolu dina cool de mu wër àdduna donc day ñëw la 27. incha teg man. ndax man lu bees laay bañ gis. vidéo bi pare na donc bu ñëwee rek. ñu ñu rogalaat ngeen gis lu bàyyi waaw donc kontaan naa trop ça fait ça a très grand plaisir d'être là avec vous. plaisir partagé nekk koo xamante ne aussi tamit. Mm. liggéey bu rafet lay def. merci su ma invité damay kontaan. parce que yàgg naa kaa suivre su ñu <laughs> lu dul loolu parce que dund bi wax rek. Mm-hmm. Euh, dundal happiness comme lu wax si si la bokk donc adduna amul solo. Mm-hmm. mag Birame wax nañ ko mu ngi ñëw. donc di wax ne kontaan naa bu baax a baax di remercier samay fans di leen wax ne kontaan naa ci yéen ñëpp mais bëri woon na nag ñu naan ma may ma dédicace. donc may naa la dédicace yéen ñëpp. Ah. ayca Jacques Bauer depuis la Mauritanie moom Jacques aussi jox naa ko dédicace. waaw ci yéen leen wax ne album baa ngi ñëw donc album EP la sept titres la na ngeen ko xaar multivers na ngeen ko def seen biir rêve xam nga xam ne day am affaire yu bees tàq. Bril mu ngi ñëwaat. maa ngi koy kontaanee merci di ko jaajëfal bu baax a baax a baax El Bachir ah ma nga di def lu baax euh, gox ba yëpp jox ko li nga xamante ni moo di bopp jeunesse bi itam euh, di ko ràññee yéen waa Thiès maa ngi leen di wax ni leen euh, googu nga xamante ni moo di El Bachir jàpp leen ko bu baax a baax man moom jox naa ko bakkan keroog <laughs> jox naa ko sama bakkan bi <laughs> jox naa ko pare nee naa la balaa kenn di jaar ci yow day jaar ci man ba pare ah. maa ngi lay kontaanee bu baax a baax waaye mënu ma jël gërëm gi sans te boolewuma ci ñi nga xamante ni ñoo di waa résidence Blue bu Thiès kaay merci beaucoup à vous contentement mbégteeg bànneex gi may àndal chaque week-end boo fa ñëwee gis naa ko Abibatou maa ngi lay shada bu baax a baax Aliou El Bachir nuyu naa leen bu baax a baax a baax merci à vous amis chers téléspectateurs de nous avoir suivis le temps aussi euh, ma leen di wax ni euh, ki nga xamante ni moo di sama xarit Jules Gaynde borom Italiano ah kapo baa ngoogu ku makkaa ngoogu ponkal maa ngoogu mbokkum yaay lëz mbokkum yaay bastung mbokkum yaay xëcha kontaane naa la bu baax a baax sunu xarit bi loo wax def ka kenn du yow ayca merci beaucoup à vous euh, di leen jox dig daje insha allahu rabi demain dans 11 13 ngeen leen ci mbaax ngeen gën a mën a kontaan merci beaucoup gërë a doo xaat gërë <laughs> tapet bi demal <laughs> ba suba <laughs> waaw tout simplement magique forfait magique